ñu ngi leen di sant bu baax di leen di nuyu ci daje bi ñuy daje ak taskati xibaar yi surtout ñu nekk ci tàggat yaram ànd ci ak waa IBS ak force de défense de sécurité yi ànd ci aussi ak ministère yi ñëw coupe d'Afrique bi ubbi coupe du monde bi ñëw boobu nga xam ne ñëw bu am solo la te ku ci ne am ci wàll woo war a liggéey ñu daje ci nag di waxtaan ak sénégalais yi parce que du kenn moom mooy repré mooy recevoir coupe du monde bi kii recevoir coupe du monde bi mooy Sénégal Sénégal nag 17 millions d'habitants la donc ñëpp la concerné kon dafa laaj ñu àddu ci waxtaan ci ak mbokk yi te am na lu am solo it parce que le 6 jours bi trophée bi di ñëw ci Sénégal lu rëy lay doon mu doog guleet ci réew mi. mooy coupe du monde nekk ci biir senegal coupe d'Afrique nekk ci biir senegal loolu defe naa ne lu ama am solo la loo xam ne tiitaru képp kuy senegal la parce que bi ñu gañee coupe d'Afrique bi senegal yëpp wane nañ ne lii lu Sénégal yëpp doon xaar la coupe du monde bi it bi muy ñëw ci senegal ci at yële weesu ñoo na waaye fekku fi coupe d'Afrique de nations kon buy ñëwaat te ñun ñu soxla ko di ci liggéey defe naa ne dafay interpeller tous les sénégalais ñëpp mobiliser wu teeru trophée boobu ñaan ci nag pour que mu dellu si waat bu coupe du monde bi jeexee loolu lu am am solo la loo xamante ni ñu ngi ciy ñaan waa Sénégal yëpp surtout coupe daf ñi nga xamante ne ñoom ñooy Allez Casa ak ñi nga xamante ñooy douzième gaynde supporters yooyu nga xamante ne wane nañ seen bopp ak responsable sportu Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci li nga xamante ne mooy arrivé. coupe du monde boobu ci weer wi di ñëw di weeru septembre bu amee juróom benn fan lay yegg si ci réew mi ci bu fukki waxtu ci suba jotee ñu war faa daje nag jël aéroport Blaise Diagne war a daje teeru ko ñi nga xamante ñooy yor taskati xibaar yi nekk ci ay kilifa dinañu fa nekk ñi jiite kuréel yi nga xamante ne mooy Ale Casa ak douzième gaynde dinañu fa nekk waaye comité olympique dinañu fa nekk fédération sénégalaise de football nekk fa mais responsable sport yëpp nekk fa ak ministère yi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi waaye loolu mooy li jëm ci wàllu état waaye booy xool li nga xamante ne mooy FIFA dafay liggéey toujours ak ñoo xamante ne ñoom ñoo am droit yi nekk ay liggéeykat muy waa IBS nga xamante ne ñëpp xam nañ leen ñoo xamante ne ñoom ñooy organiser parce que ñoom ñoo yore produit Coca-Cola yi su ko defee ñun ñëpp ñu ànd mun a teeru li nga xamante ne mooy coupe du monde boobu dinañ ci àddu gën a préciser liy xew ci ñaari fan yi nga xam ne coupe du monde bi dina nekk fii ci réew mi bu le 6 passé nag ci juróom-ñaareeli fan bi ci weeru septembre dinañ dem ci palais de la république ki nga xamante ne mooy njiiti réew mi di son excellence le président Macky Sall. dina recevoir ci ñaareelu yoonam li nga xamante ne mooy coupe di monde loolu nag Sénégal yëpp dinañ ko seetaan te bu koy recevoir day mel ni Sénégal yëpp ñoo recevoir li nga xamante ne mooy coupe di monde boobu dina wax ak waa FIFA wax ak waa IBS wax ak waa réew mi defe naa ne loolu moment yu ama am solo la loo xamante ni dinañ ko partager ak l'ensemble de la population sénégalaise leneen li ci tegu nag mooy bu ñu demee ba mën a am lii nga xamante ne bariwul réew yu ko am qualifié beneen coupe du monde tegle ñaari qualification loolu dafay wone li nga xamante ne président Macky def na ko fi ci wàllu politique sportive permettre fédération yi ñuy ami ndam pour le peuple sénégalais loolu nag ñun ñëpp ñoo ko war a rafetlu moo tax liggéey bi maa ngi koy dénk ñi nga xam ne ñooy supporteru équipe nationale yi muy douzième gaynde di Allez Casa di ñun ñi nga xamante ne yàlla dogal na ci sport bi lañu ne ñëpp ñu ngi leen di invité ci grand théâtre su ko defee ñu mun a féete li nga xamante mooy l'arrivée de la coupe du monde loolu nag dafa nekk farata ci ñun parce que liñ réew yëpp amul boo ko amee da ngay wane lu kenn mësta wane moo tax ma bëgg bés yooyu nga xamante ne mooy juróom benn fan ak juróom-ñaari fan ci weeru septembre nekk lu nit ñiy fàttaliku moom laa wax léegi ci tubaab nee naa leen match si coupe du monde yi supporters yi sénégalais yi ñi nga xamante ñoo nekk fii ci réew mi fii lay commencé le 6 war a gañe nag match yi ñu war a am yépp ñun bu ñu gañee ñaar yi defe naa li ci des joueurs yi dinañu ko gañe ñuy ñaan mobilisation bi wone ne bu ñu demee ca Qatar dinañu fa def jaloore te bu ñuy ñibbisi aussi dina am mobilisation loolu nag tey lañ ko war a wone te Sénégal yàgg na ko wone defe naa ne première fois mu ñëw fii président Macky Sall nekk na président bu am chance su ñaari yoon yu tegle muy recevoir li nga xamante mooy la coupe du monde bii nag comme ni ma leen ko waxee dafa am exception exception bi mooy ci juróom-ñaareeli fan ci weeru septembre ca palais de la république liy coupe d'Afrique ak coupe du monde yëpp dinañu fa daje loolu nag liggéeyu Sénégal la te mbégte Sénégal la war a doon kon maa ngi woo waa Sénégal yëpp di woo l'ensemble des sportifs toutes disciplines confondues ñëpp nañ def une forte mobilisation pour ñu mun a accueillir li nga xamante ne mooy raaya àdduna bi ci wàll football te ñu war ko jongante ji ci Qatar ci fin novembre jëm décembre maa ngi leen di sant di leen gërëm a sant. na ñëpp àndoon naan allez Sénégal.